ñàppal ñi nga koy fekk TikTok Instagram pass Facebook eh koy pis yow man duma sa morom de booy woon nit ki te xamoo turam doo ko bàyyi. wuy ma maa ngi tub di jégalu quoi xam nga man instant dama am problème bu urgent te yow rek yaa ma si mën a génnee waaw instant yi dama la bëgg loué ba 31 décembre bi passé ngeen di facture moo fay la mais lii naa fi ak 31 décembre bi doo ànd ak kenn man rek ngay àndal ñu wër si koñ bi waa koñ bi gis ku may àndal quoi parce que la quoi. waaye yow kii nit la may wax na a naqa di waxal quoi comme déggoo buur dee na buur saay na quoi dama am sama benn gel bu dëkk si koñ bi. Adja mooy doomu chef de quartier bi waaw yow rek lay bañ a gis nag saa yu ma toggee bon rombe bu ni kii moom dafa soof kii dafa poose affaire yooyu quoi. waaw dama fa dem di ko invité 30 ans décembre parce que ñu am soirée mu ne moom 200000 lay laaj parce que habillement am bu di nekk si bopp beeg yére dàll yi 200000 la te wóorul mu ànd ak man parce que papam da koy tàggu après papam mu bañee mu toog léegi moom dof la mu bëgg jàppee quoi dañuy kii naa encaissé 200000 ba pare toog ak moom. waaw te loolu laa du nangu léegi ñu am benn discussion noonu mu mer ma mer ñu xuloo léegi ma ko bëgg wan ni man mooy loolu je suis pas n'importe qui quoi man nekkuma coxo coxo quoi léegi ma la bëgg jël fii ak 31 décembre ti ah, jot ñi ànd maa yow di si koñ bi 31 décembre ñi ànd xam ne ba dem poto costé. maa xaala baax na si yow su ngeen di doxaan leen ko. non man du ma doxaane xaalis quoi moo xam ne loolu yenn na sama gale ceebu keccax bu saf sàppal fàññee waaw te seen kër a ngi nii dama fay ñëw moo xam sa beeg fonda ba leen ni bëgg yóbbu laaxira waaw moom xam na affaire bu baax nu mu fa dem xam ne man yoruma dara moom it yorul dara waaw day jóg daanu rek mu koy moo fuuy fuuy boppam ma invité ko mun ma deux cent mille ay génnee ndax damay abi xaw ma may solo xaw ma kër kër yoonu quoi xam nga moom du si dara quoi affaire yu man la waaw moom xam moom wóor nañu ko sax man aw ma deux cent mille bi ma sol tey moo ko nax bu yow mu yow Colobane fii laa ko laajee deux cent yow nag faa nga dal moom lu muy wax si yow yëpp boo rombee mu naan kii dafa ëppal affaire yooyu dëgg la yow da nga ëppal da ngay tee rek waaw instant yi remplaçant nga rek nga yow man doo sama size quoi man bëgguma lu diis man lu tuuti laa bëgg quoi dama ni nga dem laa la wax ndax cuuj day xam lekkam ndax kee deux mille la la laaj man moom un million laa lay laaj man moom maa doon rek nga bañ dugg si man nga naan remplaçant ngay wut li ngeen di yabaate yëpp mais yéen neen dox falal loo ko yow laaj yow yéen 31 décembre du bis rek si bisi ah yow un million xanaa mu seen këyitu kër da si àndaale ak seen waa kër Ah, yéen ñëpp ñëw ànd si ak kayitu kër gi ma téye en attendant un million naa ko ah, bàyyi ko demal jàppal ñi seetaan kàddu Ola taalal ñi seetaan kàddu jàppal YouTube nga koy fekk TikTok Instagram